Aminata Touré mi nga xam ne ñenn ci suñu ay naataango euh, doon nañu ko dalal ngir mu waxtaane euh, lu jëm ci wàllum coalition ak euh, élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal mu di élection tànneefu njiitu xew bu atum 2024 mu yëkkati fa nag ay kàddu mi nga xam ne jamono ji bokk na ci F24 wax na nag ni fi mu ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci gouvernement bu njiitu xew Macky Sall te pare nañ ngir ànd ak moom ci xeex ñetteelu candidature bu njiitu réew mi ànd ak Aminata Touré moom ci boppam ngir li nga xam ne moo ñeel élection mooy Birahim mu nekk loo xam ne bu sàggantuwul euh, dina jur coow mu di loolu nga xam ne moom la a Touré wax ni am na ñoo xam ne ci gouvernement bi te pare nañ pour ànd ak moom. waxam la. Mhm. moo ko wax peut-être dafa am ñu ci waxtaanal ci biir gouvernement bi ñoo xamee ni effectivement euh, lu ñu jàpp moom li mu jàpp moom la ñeneen jàpp mhm. moom nag fi ma koy xawee naw moom daa daa teel a daw. Mhm. mu leer ko ni peut-être am na situation bu posé wu mu teel a ne xaaral fii moom baaxatul bàyyi ma jóge fa waaye fu ma ngay ngañee ba tey te loolu du soppeeku ci man mooy ni ku nekk ak yi avant 2012 sax ba tey jii euh, tu es comptable ci lépp ci lu baax ci lu bon lépp comptable nga ci ndax lépp yéen a ko fekkee noo yéen ko defandoo am na yoo xam ne yaa ko bind sax euh, nekkoon directrice de campagne ak maanaam Euh, tu sais am na ci campagne Macky lépp lu mu waxoon ci discours ñetti nit ñi ko doon wër ñi ko koy bindal di ko waxtaan ak moom euh, du ma tudd ñaar ni mais moom bokkoon na ci ñetti ñooñu donc tey mënul génne boppam ci mbirum gestion Macky Sall tey ma nga dem féete nguur gi ma ngay euh, bras dessous bras dessous ak ñoo xamee ni démb day am na kàddu yu ñagas yu mu doon wax ci ñoom ñëpp a ngi gis vidéo yi jàll ñu koy fàttali vaar lu ñuy wax moo tax politicien da nga war a moytu vaar moytu ñu delloo la ne la démb yaa waxoon lii suba nga dem waxi leneen peut-être que conviction am changé na peut-être que gis-gisam changé na mais ñenn ñi ba léegi jàpp nañu ni la ñu ko joxul assemblée nationale mu doy jiite ko wala lañ ko joxul poste nangam mu war ko jiite moo waral mu dem ba fippu ba tey mu féetee nekk benn bokk ci opposition di ba pare opposant bu bu tàmbali radical buñ gis si moom euh, am na sañ-sañ xam naa ni du ñàkk bés ñu toog mën a waxtaan ak moom directement euh, poser ko ay question ci wàll boobu. incha allah euh, Alaaji Mansour. posé ma question bi ma dégg nga ne Aminata Touré lu wax. demande nga jàngatee soxte Aminata ak loolu moo. lu wax. muy. nga ne am na ñu koy ñu ko fas yéene topp ci.

moom comptable la ci. yi xew ni yëpp ci wàllu politique bi lu bëri moom moo ko rëdd ci wàllu man bi ma gisee mi mi wàcc ci roppalaan di soutenir Ousmane Sonko Casamance tuuti ma ubbi suuf si dugg ci biir tuuti rek ma ubbi suuf si dugg ci biir. ak li mi li mi waxoon lépp ci dossier bu Adji Sarr ak Ousmane Sonko vraiment. finalement ba comprendre ñuy politique. mais benn côté li mu wax ci ñu koy ñuy jógee ci Macky Sall. boo ko fekk si xuma moom la ñuy fekki xuma keneen la ñuy fekki. Mhm. mais loolu mooy moo mus a nekk. Mhm. Euh, réalité histoire politique gu Sénégal. Mhm. Euh, ku wet di xoolal tey bu ñu la nee Omar Sarr ministre ci gouvernement Macky Sall bokk na ci 25 yi ñu doon topp yi ta 25 yi taxoon. ñu créé CREI yi ak Abdoulaye Balde. doo ko mën a gëm politique noonu lay doxee nguur guy waaj a daanu wala ngay waaj a jeexal wala sa ëllëg leerul. déjà dina am ñoo xam ne ut nañu fu ñu teg seeni nen bu yàgg kenn du leen ko tojal. ñom non lañuy ñuy parce que politique gu Sénégal lépp calcul la. du du du caageen nak Mimi mo am doole pour récupérer ay militants Macky Sall dé du caageen bobu dé mais ñi ànd ak Macky Sall bu ñu wóolutu seen ëllëg ñuy teel a ut fu ñuy teg seen ay nen. eh loolu motax nu nit mëna nek ministre ci nguuru Léopold Sédar Senghor. nekkaat ministre le président assemblée nationale ci nguuru Macky Sall nek ministre ci nguuru Léopold Sédar Senghor mi fi jógee 83 xaw 81 ba léegi nga nekkaat président assemblée nationale wala ministre ci nguuru Macky Sall c'est-à-dire nabbin woowu mo wara a Sénégal mo wara a Afrique gis nga ñom Mimi yii Ni ñoom Khalifa Sall yi ni ñom Karim wad yi ni gaay ñu ñuy yépp dañu dañoo lem seen kaka ki dëbës abal abal ñu géewu Sénégal géewu politique gu Sénégal parce que ku nekk dénk nañu la nga doxal man fukki at Khalifa Sall ministre la woon ci ngour Abdou Diouf tay waratul woon xëccuwaat ci wàllu politique mais demal France ñu yag ci opposition bi xeyna na nañu continuer di nekk ci opposition bi toujours di deux té sax dafa am sen politique dañ ko utal ben durée de vie quoi mais bëgg a nekk politique 18 ans ba 98 ans toujours naan Sénégal yi mën la ñu wóolu Sénégal yi mën la ñu mais Khalifa Sall bi ko wóoloo moy bi mu ministre ci temps nguuru Abdou Diouf mais Karim Wade bi ñu ko wóoloo mooy bi ko bàyyam joxee ministre asamaan seeg suuf si ak lépp lu tënku ci lu ne ci diggante bi. ak jaww jeeg géej gi jaww jeeg géej gi. mais Aminata Touré bi ñu ko wóoloo mooy bi mu nekkee premier ministre Macky sàll mhm. nekk ministre de la justice Macky Sall. nekk président assemblée nationale Macky Sall bëggoon a nekk président assemblée nationale Macky Sall mais nekkoon mhm. njiital CREI bu Macky Sall. mais boo jeexalee loolu noonu suñu yaay ay dëmbooj nga xam ni moom dañu ko naw loolu bëgg ko moom itam ni mu jiite ci nguur. nu mën a xëccoo ministre gis nga boo nguuroo ba nag bàyyil ñeneen demal tëddi bul ñu gis nga politique bi ñi ko euh. ñi ñam nguur ba noppi. Mhm. lànk ne duñ ko bàyyi parce que africain moo bëgg nguur mais honnêtement fokk ñu respecter sénégalais yi. Mhm. Faut ñu nous ne na 109 bu ñëwaat ci politique bi pour ñu bàyyi ñooñu doxal au moins ñooñu sommes ñu ñeneen remplacer mhm. politique li

dañu génne seen loxo ci soos bi seen biir fees na. merci Mansour dañu bëgg nguur quoi comme ñoom doo nga mën a doxal wala ñoom doo nga mën ñoom doo nga jàng wala Sénégal ñoom ñoo ko doon. daa neex doo wax loolu Mansour. <laughs> nguur moo neex Mansour kenn du ko ñam di ah, bëgg a dem. Euh, Birahim li ñu cërale woon ci waxtu jeex nañu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi euh, juste nga may ma ma mhm. jàlle waa PDS surtout mhm. maanaam Viviane Wade ak Bokar Niang bi mhm. ni. garde du corps ku ku gisoon Ablaye Wade gis euh, gis ko ci ci wetam moom di ko jàlle vraiment waa parti démocratique sénégalais. démb ñoo xam naa ne ñoom ñëpp ku ci mel ni Viviane Wade vert Wade. Euh, am na lu ko lu ko metti ak njabootam yëpp vraiment mm. muy koo xamee ne mm. on l'a toujours mm. vu euh, euh, toujours présent garde du corps mm-hmm. euh, aide aide mm-hmm. de camp daanaka lépp mu nekk ko ci wetu mm-hmm. njabootu maître